président de la république ru président ci côté Europe Colobane ak Sandaga de la république ci palais de la république résidence du de la république mu doon la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 de la république kookan la war a ak fan lay woote salaamaaleykum waaye man de bët seddi gi li ma ci jaaxal ba léegi gisaguñu ndox. waaw allo de doy na waar ba tey bi ba noppi béykat bi di yaakaar premier taw ngir mu mën a ji gerteem ba ba ba ba sànq ci suba gisaguñu um taw ah lii de <laughs> waxoon naa ko Macky Sall neewoon naa ko wutal ay appareil nga samp ko ci jaww ji. waaw première asamaan deuxième asamaan troisième asamaan asamaan ju ne nga nga nga nga samp fa loo xam ne day xëcc ndox eh, mi waaye déggalu ma déggalu ma de mu dem def la ko neex. Eh, allo Papa Loum li mu waroon a taw lépp da koo balu salaamaaleykum mani wuyu ma boo wootee téléphone xanaa da nga wax allo sax mani salaamaaleykum allo dégg ah, bu ma ko bu ma ko jotee tey danaa ko wax lu mën a dégg danaa ñu ko di wutal ay appareil appareil yuy xëcc ndoxum taw nga samp ko ci jaww ji taw bi taw bi wala ngaan mu te salaamaaleykum Papa Loum allo ma ne maa Papa Loum. yow jëlal téléphone bi nag ñàkk nga fayda trop ñun yoruñu qualité bu ñu yàq. ah yoruñu qualité bu ñu yàq bu ñu wootee daga nga ñoo war a jël ñu wax suñu soxla lii jaaduwul tegoo ko fenn. eh ma ne Papa ndax yaa ngi may dégg wala déggoo ma. dégg ko kii da mooy kër tax <laughs> ga كي دبر كسفيت بامبو مي ياكر لما كي زال نياك كي كوكو غاي ندخ لازم ما نبري في دان انا هو انا هو تصخ ليك ليك دو خام فم جام دخكي الو السلام عليكم ماري ماغي بان ماغي بغات دي من بو مونوم ندخ مان مونو ما بولا تانغورو ميتي ويتي دكار ديك ديكو منا ياغنا ديلا ديلا ديك ديكو منا ياغنا ديلا ديك من ميغا خدي بو بو ليغي ماغي لاي وسما كزي تي تي جيخنك الو استاندس من بابا لوم ماني ديل ديل تليفون ني دي واخا نيني لا واخ dee ko jël loolu dafa jaadu li ngay def tegoo ko fenn wala ma wax ma Macky Sall ñu jëlal di ci bopp waxukaay bi lii lan la eh yaa ngi nii di ma soog a wuyu. mani yaa eh. ngi ma yaa ngi ma. maa ngi lay dégg kay maa ngi lay dégg. waaw mani lan moo waral sa woote. dañuy lan moo waral. sa woote. bu may xulóog yow damay dafa jaadu ndax xulóog yeeg yow dafa jaadu pour nga fonk nit ñi jël téléphone bi. déggal mu naan xulóo man dama fee waxi xulóo man lu waral woote. ma ni maa xulóog yow ba samba ba samba di ca demba maa ko def léegi dama ni woon. danga ni lan. dama ni woon. dama ni woon président Macky Sall. waaw. ma ni na sàkk pexe. comme lan ndax wax dëgg yàlla comme mbas mi fi ne ba léegi mi ngi dëkk ci mi ngi dëkk ak ñun mënunoo dem bàyyi ko mënunoo dawati ko fi ndax ñu ngi dund ak moom ne ko baykat bi toogoon nga xam ne at mu ne mi ngi daan wut ñaari batiko ñetti batiko ñeenti batiko juróomi batiko juróom benn batiko ren amul genn wàllu batiko na wut gerte sax sax wala kemb wala mu du wut wut ñebe xulaas ci wala mu wut dégg nga maam ñebe adiko dimbale leen ci wàllu jiwu ndax mbaam yaa ngi tekke fas yaa ngi tekke safeet yaa ngi tekke waaye ba léegi amaguñ luñ def ci suuf te ñu ngi waajal peut-être taw ne ko nag na gestu noonu ndax loolu wax dëgg yàlla loolu moom moom a nekk. mari papa lu tey juróomi nañu tëj yi nga waa. mari ndax foofu ngumba ngumba ndax taw na wala tawul. nga ngumba. ndax taw na. xanaa ngumba balaa taw xiin. <laughs> ah kon ngumba xiinut waxuma laa kii moom poussière na daal ngumba daal poussière na. poussière bi fa wàcc bët moom tax na moom ñëpp a soj ngox ngox jaa mel ne bu ma waxati. waxuma waaye dama ni du benn yi tëj gi muy tëj bët ki dem boo njaay la ma dal duus naa ko nettali. waaw man yow sa nopp yi nopp fan nga koy fajee. nga ñuy seetaan. nopp yi nopp yi. sama foo ko fajee. yéé dispensaire de ngay jiit hôpital ndax bari malade yow ma lay dimbali ndax nopp yi sakk <laughs> تخبان قاعد يجينا تتخنك ايوا تخبان قاعد يجينا تتخ ايوا سينا قال والله يوم ما قلنا ما قدم دانتك ولا برنسيبال ولا لا بدل ابد الخير ما man de toogoon naa pour man sax madame Ndiaye mi ci dispensaire bi foofu moo la ko xoolal <coughs> aywa tax ba yow yitte la nga bëgg a wàccu eh, yow papa Loum doo faju ji ngay jiiñaatee nopp. Papa Loum. ah waaw. Ah, sa sa dernier mot maanaam sa kàddu gu mujj li ngay tëjee lan la. sama. kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj. waaw. mooy. waaw. neel président. waaw. Eh, ceeb bi gannaaw boobu ba léegi ñu ngi ci xiili xaala ñii naan ceeb bi ñëw naan ñëwul. waaw jiw bi noonu mu gën a gaawee na ko joxe wala man bu wotee jotee ma ni gars yi buñ ko woteel. Ah, loolu ngay <laughs> tëjee. ba mu saf sàpp kay xale. waaw la Marème Faye Sall defal yëpp. waa juum naa de Marème Faye de ak yaayu Marème Faye moom. waaw nee leen nag tabaski gi jub si na taa ma gën a xam. wuy ma wuy ma dóor yi nag du ko nangu. tabaski gi jub si na nee naa yi ma pour la. dóor